barka sabru sar jasaka xelwa Ibrahima malaka hayru jasamuna larika amlaka jumna عليك أولاك مولاك الجزاء بارك زهر زهر جزاك إبراهيم مولاك خير الجزاء دارك أولاك كون الله لك الجزاء بارك سفهلا بأنك هل شريل أبدا وزكيك في الدنيا وأخراك كمال مولاك جزاؤنا الرحيم سرد أبدا وسكنك في الدنيا وأراك جمن له أكا جزاء به ملكت كل محفلي إلى النبي وجهت هند قلبي سوى نبي ساقط الورى نفعني نافع في قبل النساء منفعتين وبلائه نساء قلت لسجلال والإكرام di dalal njabootu Serigne Touba gépp tàmbali ci Cheikh Moustapha ba ci soxna May bintu Xaadimu Rasuul ci taxawaay bi ñuy taxawu bis bi waaye dugal ci képp ku sëñ Touba seexal sëriñ xabaan mais ñoo bokk way jur muy Cheikh du Fadal sama bàyyi Aliou da daan wax yàllaa ko bind sëñ Fallou moo ko maas soxna may bi mu nekkee fii sama bàyyi bu tegee saaj bi ci kër Rama Fall si nga xam daf ko ko sédde woon fii lay jëkk a dugg ci Touba mu nekkoon xaritam doonu sëriñam doon wëllëreem wu wér 75 ak léegi nag maa ngi fekkee bis bi maa ngi doon teew fi sëñ Bassar di yónnee ak mu ne junni ganaar loolu la tàmbalee woon junni kon mel na ne ganaar ya nga xam ne soxna May toggoon na ko andil ko moom Mamadou Fadal ah liggéey la boo xam ne bii day dañ koo jiwoon ci bàq bu tooy xib at mi nga xam ne indi nañ fi gileem dama ñëw mu ni soxna may Modou Fati Xari yóbbul Moustapha Cissé mu gis gileem ga ganaar ya de ay gileem la léegi at mi ñu sañcee kër gële ci HLM ci laa jëkk ñëw ci moom ni ko dama bëgg di barkeelu di andi ñaari dab waaye dama ko bëgg a def loo xam ne dafi dul bari ceebi jën mu ni ma ah sàllaaw lool de bu ñëwee rek lépp mat ma dem wut jën yu mag di togg di ko indi at ma ma ko indi ñuy sañ kër ga dañu gouverneur lii moo laa bëgg ku ci dogu say aajo faju nun ni ko defoon ñun suñu ajo faju na sëñ Bassar ak waa këram nee leen sëñ sang seen liggéey ci sëriñ Touba sëriñ Touba nangu na ko lu wér la ndax jëf ju sell la jëf ju yàll yàgg la jëf ju ànd ak pastéef la ndax ñoom ñi ngi koy def te boolewuñ ci lenn ci wax jëf ju mat ju yokk ak mu ne bàjjen yàlla na la yàlla sàmm yàlla na nga fi yàgg nun ñi yaakaar bàjjen rusuñu ndax yow day bi mu la bàyyee yan bii ñun ñëpp jàqoon nañ soxna may ca reeja soxna may ca yërmande ja soxna may ca tabe ga ca bëgg ga doomu aadama neexut a wax wax waaye mat nga place bi toog nga toogaay wi nga xam ne moom lañ doon séenu ci yow jooyuñu wax naa sëñ Moussa ni ko soxna may li mu soxna Bali li kiimaane ci man daf may woo di ma ñaan loolu bëriwul tëj ma ci ne billaahi wallaahi taala daf may woo di ma digal bu déggee ci man dara xolam du neex lu dul lu rafet nee na bëgg koo dégg ci man bàjjen yàlla na la yàlla sàmm soxna may day royukaay la li tax sëñ Touba séddee ko bis bii duy caaxaan de bis bii wér na ma ne ku ci def bu déwénee da nga def mën a def lu ëpp la nga defoon man de engagé wu naa bés bi ba ba may jóge fii bu ñëwee moom laay def suma bés du ma ko def beneen bis danaa ci ànd ak yow mooy suma léegi bu xaj حفظني مكارمي منولي عن كل ما لم يرد لي نعم الولي ما رمت بالمنتقى المفضل كان لي في موضعي ومن